salaamaaleykum kooku kan la Mariama. waaw man la Mariama. <laughs> waa Mariama natt bi ma bokkoon ci yow nag. barke yow man xayaama lakk bari julli gi ñëw na. ma ni eh. Mariama yoruma dërëm dërëm dërëm. xoolal man damaa wopp de. Mariama jàppati yàlla tax nga nga ma. man teggalu may natti kenn na. <laughs> ku waxal. Mariama war lay coupé kii kan la Mariama waa man la Mariama <laughs> Mariama mbaa ngi ci jàmm waa Mariama natt bi ma bokkoon ci yow nag barke yow man xaama lakk bar julli gi ñëw na ma ni eh Mariama yoruma dërëm dërëm dërëm xoolal man damaa wopp de Mariama jàppati yàlla tax nga nga ma man teggalu may natti kenn nag <laughs> Mariama Mariam ku mu waxal. xaari mu coupé ko sax. <laughs> Mariam war lay coupé. <laughs> kii këram